salaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñi baaxoo di seetaan seen sit bu mag bi di leer leerlu TV leerlu ba pare daal di génn leeral askan wi tey nag ku nekk xam nga ne dañoo seet woon kilifa bu mag muy Serigne Cheikh Aliou Mbacké bi ñu ñëwee seet ko nag li ma gën a neex si seet si bi ñu ko seet bi ñu ñëwee dañ ne ñu mi ngi mi ngi si tool yi moom ak mbokku taalibe yi njaboot gi nekk ku ko xam-xam ko si liggéeyal dëkk maamam bii di dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim ma taxaw moom nag maa ngi leen di bàyyi mu leeralal ñi li nga xamante moom lay def fii nii si biir tool yi sëriñ Cheikh Aliou bisimilah. jërëjëf euh, soxna si santu buur bi tabaraka wa taala jëli ci yonent bi Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam sant suñu yaakaar tey ëllëg di xaadimu Mustafa di siyaare euh, ñi ngànk euh, tarixa yi torox yëpp muy tarixa yi Sénégal yëpp ak ñi jiite ci lislaam ak ñi ciy yëngutu ak waa mépp sax mhm. ak waay mën a bokki mhm. euh, xanaa di roy rek topp li Serigne Touba euh, doon wax rek liggéey ak jaamu yàlla waaw te teg lépp ci xam-xam ndax xam-xam moom inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa la waxoon abdan xadiman wal muhaminu shahidu mhm. loolu ñaanoon kon nag ñu topp ci moom ci wàllu googu euh, di leen sant itam seen tewaay ndax bett ngeen ma tey wax dëgg yàlla waaye nag yàlla baax na sant yàlla ba ngeen ma bettee ci liggéey euh, ñu bari sax sàkku nañu bu ñu fi rombee bëgg a xam lan la bay sit yu bare bari bëggoon fee ñëw pour laaj ma waaye ma ne Mor Mbay sëñ Mor Fall mi nga xam ne euh, lépp lu ma mas a liggéey te sëñ Saliou sant ma ko taxaw na ci na war a taxawee ànd na ci ak moom kon jëmmam mooy sama jëmm moo tax ma ma ma nangu loolu waaye la damay préféré la may nekk ma jël ci yàlla seere rek ginnaaw bi ma santee sëñ Muntaxa Mbàkke nga xam mooy sama lépp. Sëriñ Tuuba Cheikhul Xaddim daan digle liggéey ak jaamu yàlla te loolu rek ci lañ ko mus a xam loolu nag tax na képp ku mus a aju ci moom loolu la laan digal te ci loolu nga nekk. Sëriñ Cheikh moom Sëriñ Aliou Mbàkke mu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbàkke fas yéene jaar ci yoon woowu. ni ko waajuram sëriñ Aliou defe woon waaye ni ko sëriñ Modou Moustapha Mbacké defe woon dëkk bii nga xamante ne bii sëriñ Modou Moustapha moo ko sancoon muy Tindodi loolu rek la ko sance woon ndiisoo nag mbokk yi am taarix lool ci yoonu murit ndax sëriñ moo Modou Moustapha Mbacké mi njëkk a wuutu sëriñ Touba ci atum 1927 liggéeyal na fi sëriñ Touba xam ngeen ni Tindodi itam mi ko sancoon ci ndigalu sëriñ Touba Cheikhul Khadim euh, dañoo amoon ko dul Khadimu Rasul ak ñi mu fi bàyyi njabootam ga euh, tàmbale ci euh, fii toolu sëñ Mouhamadou Moustapha la woon ba premier xalif mu jur sunu waajur nga xam ne bari na lu dem ca euh, njaareem ci bi mu nekkee ci résidence surveillée lu bari fii la fii la jóge fukki sàqi fukk ya mu joxoon xaadimu rasul fii la jógoon fii la ko béye woon kon nag béréb la boo xam ne waaw booy wone wax dëgg yàlla jaadu na ci béréb bu mel noonu ñu ñu ñu jëfandikoo ko ci wàllu ko loolu sax la ñu xam Mbàkke Bala moo tax bi ñu demee si daara ja ñu xamal ñu yaa ngi si biir tool yi moo tax bi bi ma ñëwee gis tool yi macha allah ni nga xamee ne àll bu yaatu bi ñu ne fii mooy sa daara macha allah nga xamante ne lan moo ma gën a neex ba gën maa neex comme euh, njabootu Serigne Touba gi war nañoo def référence yow ndax li tax ma wax ko nga nga yor tool bi yaatoo nii macha allah daal bënn nag sa forage bopp. bi may gas bii dem naa ba ci Serigne Mountakha ne ko maa ngi gasub forage boo xam ne ndoxum tubaab su ma ko yokkul du ma ko wàññi maa ngi la ci ñaanal nga ñaanal ma mu bënn te neex waaw ba mu bënnee day njaal bin ga amoon na ay jafe-jafe ndax lu tolloog la ma ci waroon a def boo ko xaajee ñetti xaaj dolliwaat naa ci genn wàll ga waaye bi mu ñëwee la sëñ bi ñaanoon la ma ca jortoon am naa ci ñaaram ci volume d'eau boo xam ne disponible na kon alhamdulilah ñu ngi koy sant bu baax a baax ci ñaan googule waaw ndax lu baax rek la bëgg moom la yéene ñëpp moom la yéene dëkk bi kon alhamdulilah maa ngi ci wàllu googu bismillahi fii niin addaala waaye yàkkali yoonu murit sëriñ Cheikh Aliou Mbacke nag yee tool yii di ndiisoo ko nag ak mbooleem jullit yi waaye yoonu murit rawatina taalibe nga xamante ne bii ñoom la ko yàlla booleel. di yeesalaat daara ji fii benn benn kenn rek laa fi fekkoon ñu tourné ñëw yeesal daara ji lépp fi la ma fekk ndax ma formé waatoon daara ji wëlbati ko ba daara ji nekkaat daara ba daara ji ñëpp ñëw di ci liggéey ci tey ñu nekk ci dëkk bi rek ñu newul ci dëkk bi yëpp am aajo kenn ku ne yàkkamtee ñëw di liggéey ci dëkk bi. te loolu ak farloom rek la ak farloom kese moo tax loolu demee noonu xam nga ab ab tool du àll ab tool la di dëkkuwaay suñ demee ba yaakaar ni moom moom ñu ko yor tey jii toppatoo ko ba mu nekk tey nii kër nekk ville nekk lépp ndax dëkkuwaay la tey boo ñëwee da nga fi gis lépp looy lu nit di jëfandikoo boo ko xoolee ci tool bi incha allah balaa yàgg da nga ko gis. ñu ubbi forage bi forage bi dox di neex waaye mosul ci wax ni forage bu ñu war a jariñoo la ku am àll bu mel nii boo gisee forage bu ñu sampal ñu sampal ko si biir kër waaye bu la neexoon dangay def nii rek di yaatal di bay lu la neex def ko mais dafa ni forage bi nañ fexe rejet bi dugg biir dëkk bi ndax rejet Touba la bon daal di créer yaat beneen forage ci boppam indi ko ci fii fexe nañ itam ba indi fi courant bi nga xam ne mooy tax ndox mi mën a am doole pour dugg biir Touba loolu lépp tam njariñal askan wa dong moo taxoon mu def ko malik mu mel ne forage bi mun nañoo xam ba xam forage bu mag la wala forage bu ndaw la waaw forage bi nag euh, xam nga am nay napp am na napp euh, napp phréatique mais dafa am lu ñuy wax l'éocène muy éocène l'éocène le paléocène et le maastrichien yooyu ay napp la boo dee fii fi ñu toll ñu ngi ko bënne ci cent cent trente deux napp la bu am ci ni mu ni muy tegaloo di wàcc waaw kon weesu na napp phréatique bi nga xam ne bu doon teena dana ko weesu waaw ci boobu laa ko ame mooy mooy mooy mooy paleyo paléocène bi ci laa ko amee man paléocène paléocène napp boobu noonu la tudd napp maastrichtienne bi nag moo nekk bu dee Touba la dana àgg ci trois cent mètres waaw ñetti téeméeri mètres waaw bii nag paléocène la li ci ëpp nag mooy dàq ndox ndox ndax napp maastrichtienne bi au niveau de Touba comme xorom a fi nekk nag moom la ndox mi di di ko traversé avant muy ñëw saful xorom waaye bu ñëwee traversé xorom si day jël caf ko xorom gi Touba am noonu la demee moo tax loo gën a jëm penku mu gën a ñàkk xorom loolu la doon mooy mooy maestri chaîne bi mooy li ñuy wax bëtu géej nga xam ne daanaka du jeex ya mu'minu fi janna bi durrama kadarin wa liyal am na fi daarayni yaa mbay mii nag mbokk yi kenn ku ne xam ne laaj na xam-xam ak xereñ ba tax na moom Serigne seex Aliou gannaaw xam-xam bi ko ci yàlla dénk wutiwaat na ay yeneen i boroomi xam-xam yoo xamante ne bii ñoom la àndal liggéey bi loolu sax moo ñu may ngir ñu mën a installé fii lii nga xamante ne bii moom la ñuy wax système moom la ñuy wax système goutte à goutte. man maa ngi tudd Ismaïla Diouf dëkk Kaolack. jóge mbuur nag ñëw fii ci toolu sëñ bi sëñ Cheikh Aliou Mbacke bon tool bi sëñ bi dafee bugg a def euh, liggéey bu mucc ayib parce que déjà gis ngeen tool bi ni ñu ko commencé ñu ngi def ay parcelles pour def ci ay euh, maraîchage am na ci beneen côté boo xam ne nii dafa bëgg a def euh, ay papaaya tool bi nag macha allah yaatu na waaw liggéey bu mucc ayib daal lañ fi bëgg a def. sëñ bi daal jóg ne pour liggéey. lan lañ la fekk yow ngay def nii. waaw da ngeen ma fekk maanaam ma nekk système goutte à goutte bi système goutte à bi <coughs> mooy parcelle goutte à goutte yi quoi parcelles yi par exemple mun nga fi def euh, soble wala nga def fi supame wala nga def fi wala nga def fi maanaam navet wala nga def fi euh, non non salade ça dépend yow li nga sóoraale maanaam li nga préféré pour béy ko ci parcelles yi.

ma door a tàmbalee def nii ndax xam naa ne li ñu fiy def incha allah bu ñu ko defee guddaa gudd dana joxe résultat yooyu ndax les mêmes causes peuvent produire les même effets comme ni ñu koy waxee jëf ji nga jëf ba nga xam ne sukkandiku nga ci ba mën a taxaw ci wàllu googu ba mu jox la lee boo ca jaaraatee suñu borom mën naa dogal mu joxaat la loola wala mu mu jox la lu ëpp loola ci loolu lañ sukkandiku ba euh, def lii tey أثاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري مراسي أجو برامتي ألا فراش منك بين كو غاسي بين كو انوغري ونا daayira suñu daayira boo xam ne moom la ma sëñ Tuubaa booleel moom la ma yàlla booleel muy Majmahun Nurayni nga xam ne sëñ moo joxe woon tur wi ñooñu ñoo fi ñëwoon fii ñu inauguré ko incha allah waaye ñun daal bokkuñu ci jafe-jafe yi ndox mi ndax ndox maa ngi xel tubaarkàlla sa sa yëfi sama sa yëfi bopp boo ko gasee eh, mu ball alhamdulilah ndax buñ demee ba am jafe-jafe boo xellee mu xelli ah loolu dangay ngay sant yàlla te suñu yëfi bopp la ñaanuñu ko abbuñu ko sarxuwuñu ko defuñu ko dara noo ko moomal suñu bopp noo ko gasal suñu bopp wabil muaymini lis abistiraay kama xabitu sirran ilal jamaati yàllaaw kon nag Mbacke Balla comme que ni nga ko waxee rek ci sa yërmande ci sa labir comme ni ma la wowe won rek askan bi di la seni seeni loxo labir bobu nga am ba tax nga bënn fii forage ñi ngi lay talalat loxo rek nga ñëwaat jappalé askan wi ndax askan wi sonu na alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin euh fukkat am ko yo xamne dama ko sacrifier ci sama Saliou ak sëñ Abdou Lahad ma nga xam ne moom a yóbbuwoon ma jàngi mel na lettre bu mu dugaloon ci poste sëñ Saliou sëñ Abdou Lahad sëñ Saliou te loola fekk booba yëgoowuñu sëñ Saliou ñëw joxal ma la ma joxoon alhamdulilah maa ngi leen cey sant bu baax di leen ñaan la fu ñu toll yàlla yokk seen leer loola euh, ba ma ca tolloo nelawuma lekkuma naanuma taluma sama njaboot taluma dala waaye alhamdulilah euh, jëf ju baax ci jamono yi tey dafa xaw a jafe waaye nag sant yàlla rek laa koy def ndax sëñ tubaa munoo koo liggéeyal mu neen lu neen mukk ci àddina mel na ne la ma rëccoon booba wax dëgg yàlla ah la ma ko dabalal de dooy na ma sëkk waaw la ma ko dabalal ndax maa ngi liggéey ci doomu aadama yi ci organisation xaadimu Moustapha pour la solidarité islamique munazama xaadimul Moustapha li tadaamunul islami nga xam ne mooy mbootaay gi nga xam ne sëñ sëñ Tuubaa lañ ko tuddee muy dimbali doomu aadama yi noo ngi wër région yi defoon nañ ko Touba lu ma dégg ko ci ci ku lay jàppale waaw fukki médecin juróom ñëw fi ñëw loo yéen kenn ku ne naan ah daa woote ba pare di rangloo nit ñi ci médecin boo xam ne bala nga koo mën a gis da ngay am rendez bala nga am rendez-vous balaa mat ay weer léegi nag ma yóbbu ko foo xam ne ah maa ngi bàyyiwu ma waaw feeñ na ci itam ci yu bare bare bari eh, du jar wax ndax yàlla rek a tax nuy def loola du jar wax ku xam xam nga ku xamul itam ah yàlla moom xam na te loolu doy na doy na sëkk waaw loolu moo tax nu tàmm fii pour def fii lii nu fi def tey jii nga xam ne dañu bëgg mu nekk royukaay waaw royukaay loolu rek lañ ci jublu bu doon naflaay rek mën na na maa tëdd noppalu waaye nag sëñ Tuubaa moom mooy sëriñ bi ma jàpp ne man ci taalibe yi gën a xeebu laa te li mu war mooy jéem a teg sama tànk foo xam ne bu Serigne Touba ñëwoon dana ci bég moom lay wër xaw ma nag fu ma koy gisee waaye maam moom lay wër waxtu wu ne noonu rek la demee moo tax ma liggéey bi moom mm, ma la ca digle maa ngi ciy jéem li ma sama kenn te lay kattan lu baax lu ma mën a jéem a def it danaa ko jéem a def seetuma ci nag ku ma mere seetuma ci ku ma tagg ñooñ ñëpp laa yemale ku ma xarab ak ku ma mere ku ma ca tagg ak seetuma ca lenn maa ngi cay seet rek euh, jëmmi suñu borom tabaraka wa taala ak xaadimu rasul li tax ñu koy def ak jàppale sëñ Muntaxa ci wooteem bu tedd bi ci liggéeyam bu tedd bi ñu defar Touba ñun ñëpp. kon nag nañu àndaloo ñu wër tool yi yi nga xamante ne sëñ Cheikh Aliou Mbacke toolam topp leen ma ma won leen ko comme que fii la lépp leere. xamante ni bii fa la teg moom Serigne Cheikh Aliou roye ko ci waajuram wu tedd wa di Serigne Aliou Mbacke waaye mu roye ko itam ci Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo njëkk a sëriñ Serigne Touba foofee itam. fa ñi nga xam ne ñoo di njabootu boppam nekk fa lañ teg seen tànk te fësal nañu ko sëriñ Mouhamed mi bokk ci ñi nga xam ne ak njabootam lañ waaye ànd ak moom liggéey bi. mu mel ne rek sëñ Alaaji Mbàkke moo yegg si nii léegi sëñ Alaaji Mbàkke ñoom ñaa ñi ngeen di gis sëñ bi santal na ko santal na leen boppam fee nii nga leen di gis nii ñu taxawee nii dañoo jàng ba yor seeni licence waaye dañoo bàyyi lépp nag daati ñoo ànd ak seen baay bi jàppale ko si tool bi muy sëñ Cheikh Aliou Mbàkke boobu ba léegi nag wër nañu tool yi te gis nañu lii nii nga xamante ne maa ngi romb lii daa mel ne filawoo la bu ñu mënoon a wax lii lenn lu nekk pour rek mu leer si bopp askan wi lan moo waral mu nekk fii si biir tool sëñ ñoo ngi leen nii bu baax di ci jiital sëñ Cheikh Aliou Mbacke li nga xam ne moom moo waral lii lépp euh, ndax fii ay toolam la te bëggul lu liggéey ak jaamu yàlla euh, filawoo yi nag. Eh, dañ ko def eh, ñeenti parcelle li ay filawo la eh, ye ay dar kasse la dañoo bëgg pour mu aar tool bi da koy day protéger tool bi contre le vent moo tax ñu def ko nii fii dañ ko def maraîchage fii filawo fii dañu day amaale ay kaaneeg ak yeneen yi nga xamante ni nuru nuuru na ko fële moo am darkase moo tax ñu def ko ay pàcc-pàcc fële tamit am nay garab petit forme moo mo nek nele nga xamne da fay ar tol bi ci vent bi voilà lolo tax ñu def ko. wa xam nga filawo mom da fay indi fraîcheur lolo tax sëñ bi tam ko bo xolé ci ay euh tolam yu bari sax wala wala ci bo duggé ci ay kërëm sax da nga fay gis ndax fraîcheur bi mi indi ndax garab mom moy mom moy poumon poumon la ci ci ci fo xamanteni ni xam nga ñun fi ñuy nekk dafa xawa tàng. faaw mu am garab yoo xam ne moom mooy euh, indi sedd bi. yaaba kër yaaba jóg moom tamit am na fay tool macha allah yu xaw a yaatu yoo xam ne dañu fay bay mbayum dër comme li ñuy def fii rek nga xam ne da koo bëgg def exemple exemple moom la ci jublu boo xam ne euh, képp koo xamante ne nii bëgg lu baax da nga mën a roy ci loolu voilà. maa ngi dégg sànq sax technicien bi mooy ki nga xamante ne moo ñuy wan tool yi li mu wax xam nga ne fii bu paree mun naa ne ndaw Touba yi nga xamante ne ñu ngi wër ndeysaan di di taxawaalu liggéey jafe leen yaakaar naa ne bis bu tool bi taxawee yaakaar naa ne kenn dootul jàmbate liggéey liggéey sëñ bi dina leen jàppale ku ñëw déposé fii yaakaar naa ne di nga am loo liggéey ah incha allah rabbi bu incha allah bu fekkee ni installation bi comme ni ko Ismaïla waxee bu noppee rek lépp lu aaju ci wàllu jël xale pour liggéey lu gën a jëmale Touba kanam incha allah dinañ ko def. mii nag gannaaw jumtuwaay yi nga xamante ne bii sëriñ bi fàgg na ko fi ngir liggéeyal ci sëriñ Touba daf ko saxal ci noor ak nawet waaye moom sëriñ Cheikh Aliou mu nekk formateur boo xamante ne bii saa su ne day tàggat ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi rawatina taalibe sëriñ Touba yi wala képp koo xamante ne bii liggéey soxal na la ngir ñu mën a liggéeyal sëriñ Touba rawatina ci tool yi ba loolu nag ñi nga xamante ne bii ñoom la fi nekkal. seere nañu ko. si Cheikh Aliou Mbacké ba yoroon si Sadio moo ko joxoon ci commencé ci fàtt bon boni boobu basan la loolu am na ñu ci bëri bëri xam nañ ko mën naa na ndax xamee ci temps temps moo nu ma xaw ma Mor Fane Mbaye la tudd bon moo nu ma ci boppam ak waa RTS jëloon na caméra waa RTS ci jëloon na la indi moom nii bu mhm. ci wàllu ma ci wàllu ci wàllu ma léegi foofu li simbi bëggoon benn séquence scénario bu gàtt lu jëm ci wàllu ndox mhm. parce que yàq ndox bi temps yooyu dafa métti dëkk boo foo dem rek nga gis fii tuyoo bu foo dem rek nga gis ñun di bii nii di balaan te amul benn koo xamante ne wax dëggal la koy war a saytu bu dul seen yi. suñ mën a ñëw leen bëgg askan wi xam carrément ni ñu yàqee ndox bi dëkk jaaduwul bon instant boobu suñu trop ñu xale bayoo xale xale bawoo. xale bawoo waaw xale bawoo suñu trop noonu la ko doon. ñu ngi def guy bind. ki ñuy wax Malick Tall si bon ñun dañ maa ñëw pour jouer wala jouer war a war a jouer théâtre mhm. mais bi ma gisee sëriñ bi ci toogaayam wax dëgg la li ma waroon jouer sax nekkut sama xel maanaam am naa cofeel ci moom bëgg naa ko cofeel boo xamante ne xamtuma fan laa kii mais jàpp naa ko première fois mhm. après mu jouer ñu li ñu war a jouer loo bay jàll toogaat dans un mois après ba léegi sëriñ bi mu xel bon benn jour la ma ko man tey damay dem wax dëggal jébbalu ci. bon ki ma ànd sama benn copain boo xamante Abdou Fatah Tafa <laughs> que li ma bi ah, ma sekk. <laughs> bon bi ma ñëwee sëriñ bi ma jébbalu ci moom ba pare mënu ma dawal mënu ma lan mooy sa liggéey man man sëriñ damay jaay soo. soo ngay nga waaw am na maam seen jaxate maa ne ci maam seen laay yëngu. après sëriñ bi mu ah, waaw mu ne kon loolu de baax na am benn nga góorgóorlu rek dina baax. bon ma ci diir mm-hmm. kii rek mu ne da ngaa bëgg a jàng ma am ñi ma booleel ma boole ma ko ñoom ma demee ba sama permis génne mu ne ma léegi dama bëgg nga ñëw nekk sama wet. bon si ma permis génne ma ñëw ci ma expliqué ko moom moo ngi ànd ak si Moustapha Moussa ñoom ñoo ñoo noo ànd daaw noo tàggoo lu bëree bëri. Mm-hmm. yooyu bon si Moustapha Moussa bi ma joxee sim bi ma ñaanal ma ci permis bi mu ne si Moustapha ñaanal ci permis mm-hmm. ma ñëw si Moustapha Moussa ci boppam ñaanal ma ci permis bon ci ndigal nga wax Serigne Cheikh Aliou Mbacké mi bon ouvert pour xam rek li si lu tax ma la koy euh, décortiquer point yooyu pour xam li Serigne bi mën a defaree doomu aadama ba ma jëlee taf ko si wetam jàngal na mooto jox na ma ay ay ay kër euh, takkal na may soxna tey sama taaw man moom laa ko tuddee sama taaw te moo ma takk sama soxna kon mbokk yi nga xam mbokk yi kon yéen a ngi dégg euh, li muy wax rek sëñ bi loolu lay def comme mooy li ma doon wax rek. dafa doon li muy wax. sëñ bi kon dafay dimbali waate bu baax a baax surtout Serigne Touba nag la dimbalee xam nga ne raw nga say maas ñooñu nga wax rek ña nga sa kaw. ëppale wu ñu la dara kon nañ la bàyyi nga eggal. merci beaucoup bu ñu jógee ci loolu yëpp loolu yëpp suñ biir baaxal ñu ba ñu dañu dañu dañu raw suñu maas te ñun xam ne ni raw nañ suñu maas. donte moom lañ moom moom moom lañ topp ci wàllu mbaax ngir baax baax ci biir kër sëriñ bi mais yàlla xam na ni sëriñ bi amul benn problème perkal la daal perkal la dafa baax dafa yaat dafa laa biir foofu nga la mën a ku la koo xamante moo la takkas woon may la kër jox la ay njaboot nga turge sa ko kooku kay mën naa ko defar comme ni nga waxee rek noonu la la defaree ñun tamit noonu lañu ñu bëggee mu defar ñu wàllu mbay itam wax wàllu càmm ba tax na moom sëriñ Cheikh Aliou lu jëm ci wàllu càmm itam desul yoon benn yoon gannaaw fii nga xamante ne bii moo di tindoo di rawatina tool yi di ndiisoo sëriñ Alaaji Mbàkke mii ci ak njabootam la bokk. fi fii dañ ko fay def uh, wàllum jur yeeg yooyu ay nag yek xar yek yu ni mel waaw ñuy prévoir tamit def yeneen tamit pour mu gën koo yaagat yaatal na mu gën a mën a yaatoo rek mu mel ne dañu ne ay nag ak ay xar ay bëy ay copine waaw moom moo tax euh, sa waajur bi daal di waajal fii. waaw gi uh-huh. ak yi. Uh-huh. ak maanaam ginaar yeeg copine yeeg yooyu yëpp rek. ay ginaar copine naat ay naat ak yooyu yëpp rek waaw ay pigeon. yëpp rek waaw. loolu pour ñuy wattu barab bi la muy nga xam te ne ñoo yor wàllum kaaraange. Mm. waaw pour ñoom ñoo ñu wat moo moo kon nag yi daal ak copine yi dañ leen di waaw nga xamante ne moo leen di garder. waaw ñoo xam koo xam te moo yor seenu kaaraange nga xam te ne moo leen wattu incha allah. Ah. kon macha allah neewoon naa leen rek dee leen ma topp chaque jour man Awa Ndiaye Alliance Leena damay leerlu ba pare muy leerlu TV leerlu génn leeral askan wi nee naa leen tey nag ñu ngi fii nii nga xamante ne mooy toolu Serigne Cheikh Aliou Mbacké mi nga xamante ne liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul rek moo ko tax a jóg. waaye wàllu tool bi nag moom gis ngeen ko ni mu bindoo nii loo fi gis lépp luy jëriñ doomu aadama la. أرجو برحمتي ألا أولا ينظر منك يا الله lu jëm ci wàllu yarum jën te muy xam-xam boo xamante ne bii bëri na fu ñu koy jëfandikoo ci àdduna rawatina ci biir réewum senegal Serigne Cheikh Aliou andi na ko fii muy fexe ba tàggat fi ay jën yoo xamante ne bii fii lañ leen di yaree ñu fiy meññee ñu koy mën di jëfandikoo fii loolu itam baax lool ci sukkali koom-koom. gannaaw loolu lépp itam mbokk yi fexe na ba lépp loo xamante ni bii jumtuwaay la bu ñuy soxlawoo fii ci Tindodi rawatina luy jaamu yàlla wala lu lu ñu mën a liggéeyal Serigne Touba tamuy benn bi def na ko fi indi na fii jumaa ju am solo joo xamante ne bii moo ko ànd ak njaboot gi liggéey ko ba mu yegg fii ci Tindodi ngir ñu fi julli waxtu juróom ak julli jumaa waaye itam forage yi limal nañu leen ko ak yeneen jumtuwaay yoo xamante ne bii bu ñu limee dañuy juum lépp loo xam ne doomu aadama dana ko soxla ci ak dundam. mom serigne Cheikh Aliou def nako fi ci tindo Tindodi ngir nak sante ko wajuro mu tedd wa di serigne Aliou mbake waye liggeeli ko Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xamantene bi mom mo moo wuutu serigne Touba. ne boobu léegi ñu ngi wër tool yi xool nañu ba gis match yi nga xamantene gis nañu copine yi place nag yeeg mohammed bu ñu melé na match yi nga gis gis nañ ko fi fi waxa mën nga ñoo wax lan mooy euh machine fi ñak bari na mhm. euh amna yoo xamne dañuy bay mhm. am na yoo xam ne dañuy ji euh, bu fekkee ni bee la moom dafay roose léegi nag boobu Sëriñ Seex Aliou moom moo ko defar ci ay xalaatam ndax dafa seetlu ne euh, nawet bi yenn saay day am ayu bis yoo xam ne ndox dafay manqué léegi nag sëñ bi ci xelam mu rafet loolu sax euh, ndox sax bu fekkee ni day manqué ci biir nawet bi yu ci bëri dañuy def lu ñuy wax baawanaan Sëriñ Seex Aliou nag moom daa def baaw naan ci xelam moo tax mu xalaat machine bi nga xam ne bu tool yi demee ba maral nga xam ne machine bi tracteur da koy lonk mu roose tool yi roose ko ci nam gën a rafetee nam gën a baaxee nga xam ci ni maral woowu dinañ fexe ba xeex ko loolu tax mu defar machine bee machine bi tamit am na ay bras yoo xamante ni bu ñëwee ba tolloog ëkk mën na koo yëkkati ko defee bu demee ba paase ëkk gi talalaat dry nga xam ni muy rosé man na rosé à peu près 10 mètres ci largeur bi nga xam ne tamit lu am solo la euh ñi ngi sant tamit bu baax sëriñ ñagalo ndax sëñ bi mom da bari ay xamé ñu bari ci réew mi mhm. ak ci bitim réew sëñ ñagalo mom ma nga nek euh, ci États-Unis sëñ bi mi ngi koy sant bu baax a baax amuñu fayam mhm. euh, sëñ bi tamit euh, man li ma koy santee te diko gis mu koy doxale Euh, mooy euh, ku doylu la ndax damay seetlu saa bu toogee ci ay taalibeem wala ci daayira mañ ma nooree ni wala ci ay taalibeem da leen di wax ne leen euh, képp ku ñëw neleen leen Cheikh moo wax jox man nàngam fàq leen aw yet laajul kenn dara ndax waaw ci ñaqam rek ci lay dund. kon nag loolu waaye tamit loo ko indil dina ko dina la ko defal ci liggéeyu Serigne Touba lu waay indi rek. wala mu defal loo ko ci sociale ndax am na benn organisation boo xam ne ñu koy wax OXI organisation Xawi Moustapha pour la solidarité islamique OXI euh, li li njëriñam mooy day dimbalante euh, euh, day def ay visite médicale ci ci yenn saa mu def ko Touba wala Louga wala muy may ay ceeb ci wàllu social daal ci lay ci lay ci lay œuvrer kon nag loolu ñu ngi ko ci sant bu baax la maamam bëggoon ma nga ca jërë ngeen jëf. mu koy gis te tey nag daf ko firndeel bu baax a baax kon Serigne Cheikh Aliou Mbacké dañu koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam nee naa ba naal bu mu nama liggéeyal maamam ja Xaadim Rasul suñu borom may ko kàtt nag mën mën a xel mu sell mu ko defee loolu lañ koy ñaanal tey wax nag ñi nga xamante ne nekk biir Sénégal nekk biir Touba nañu roy ci Serigne Cheikh Aliou Mbacké jàmbaaru Serigne Touba bi ndax lii nii jàmbaar rek a koy def bëggoo yëfi kenn lu dul sa alal rek la doy lépp lu ko waay jox mu def ko si social dimbali mbokku taalibe yi. kon sëriñ Cheikh Aliou Mbacke yàlla na jàmmam yàgg. sëriñ bi yàlla na jàmmam yàgg yéen nag ñi ñuy topp nee naa leen. fii la lépp leer dafay nangoo Leerlu TV dañuy leerlu ba pare. nangoo lu leeral askan wi nee naa leen de leen ñu topp. ndax yàlla naatal xar bi yamuñu fi. nongu dagaan ay archives yu bëri leen xamal bi abonné bi partagé suñuy vidéo. ak àqi am li mu tabaar yàlla jébal xar